mobilisation moom wax dëgg neex yàlla am nañ ci satisfaction bu baax a baax ndax ñun yaakaar naa ni saa bu ñu wootee dañ ñuy wuysu askanu Pikine yaakaar naa jox nañ ñu gëdd am nañu pas-pas si ñoom ba fu ñu leen woowee wax dëgg neex yàlla ñu ñëw wuysuñu organisation nag wax dëgg neex yàlla am nañ ci satisfaction bu baax a baax parce que suñu góor ñeeg suñu jigéen ñi ay jàmbaar lañ boobu ba léegi ñu ngi si waar bi boobu ba léegi ñu ngi veillé boobu ba léegi ñu ngi ñafe pour safar bi jaar yoon wax waaw mesure barrière bay bàyyi nañ si xel bu baax a baax parce que gars yi ku fi ñëw jox nañ la gel nga raxasu li li ministre bi digle wax dëgg neex yàlla def nañ ko respecté nañ ko ba bi ñuy dem di jëli ci seen am sa sax tuuti nit lañ yóbbu def ay mesures barrières yu am solo ndax bëgguñu wàccoo ak yoon ndax dañuy dox si njub ak dëggu ak dëggal ni ko señ bi daan waxee rek bég tey bég la ñu bég loolu si moom mu wan ñu chaque jour ni moom il est présent moom mi ngi si ñun c'est la première fois ba mu juddoo ba léegi gis benn leader boo xam ne dafay ñëw ànd ak ay jeune am lii ba ma juddoo ba léegi dans l'histoire de Pikine maa ngi koy doog a gis leader boo xam ne day ñëw appuyer ay jeune am di waxtaan ak ñoom wax dëgg neex yàlla bi ñu dëgmalee safar bi une semaine la ñu am ay jeunes yu am pas-pas def si suñu doole def si suñu mbir te yaakaar naa ni alalu Serigne Bamba du ay caaxaan mu ñëw dooleel ñu wax dëgg neex yàlla ñun amuñu fayam lenn rek mooy suñu fay si moom ba si élection yi jot 10 heures pile ñu xàllal ko yoon mu dugg bien sûr parce que moom si lii lañ ko xamee social développement baax ñun loolu lañ ko xamee loolu la ñu yaree ñun loolu la ñuy nekkee ak moom ay valeur lay incarné ay valeurs yu sûres ay valeurs yu certain ñun moom la ñuy incarné ak moom te gëm naa ni population pikinois yi bëgg nañ changement te bu ñu gisee lii ñu xam ne kii doomu réew mi la ñu xam ne kii doomu pikinois la juddoowul fongali mi juddoowul fenn pikin la juddoo fii la yaroo fii la màggee fii la jàngee fii la amee ay diplôme dem Chine jàngi ñëwaat fii ne noon naa am xaalisam dem dëkki Almadi wala Ouest Foire mais dafa ne sama état su bàyyi fii lay jàngee raam fii la toogee di dimbali askanu Pikinois yi kon Pikinois yi lenn rek lañu dese Lamine Gueye muy le jour J bu ñu demee ba si bisu élection yi 10 heures pile si kàttanu yàlla si barki Cheikh Ibra Fall doolay Mam Bamba ñu xàllal ko yoon bi dugal ko biir biir mairie ba incha allah.